sunugal24.net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur si si même sunugal24.net. voilà. Euh, données personnelles parrainage bi comme li ngeen ko xamee ñun bokkuñu ci parrainage bi toppatoo ñu affaire u waaye li ma ko waxee ay weer ci ginnaaw boobu parrainage bi dooragul woon lépp li nga xam ne. ñu euh, euh, euh, ko xatee données personnelles ay utilisateurs la ay sénégalais la su jógee rek ñun CDP jóg nañu ndax loolu mooy suñu mission loolu la ñu sant kon suñu toogee ba xam ne ne ñi ngi collecté ay données personnelles u sénégalais yi te ñi ngi koy traité muy nekk ci ay loxo loxo yooyu di ko xool di ko saytu di si liggéey ñun waa CDP war nañu axtu ñi nga xam ne ñoo koy def ñu xam ne que loi dafa am Sénégal dafa teg loi am te loi boobu dafa am ay charte yi nga xam ne moom la teg pour ñu xam naka la ñu war a liggéey ak données personnelles yooyu kon ñii nga xam ne ñooy parents yi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon joxe seen signature yi am sa candidat ne man de yow laay yow laa yaay sama candidat dama lay jox sama tur sama euh, sama sant sama numéro carte d'identité et cetera et cetera ndax yow laa tànn pour nga nekk sama candidat kooku am na ay droit droit yooyu mooy su la ko xasee ba jox moom am na droit ñëw xool ndax li mu li nga ko bindee noonu la am na droit tamit ñëw gis candidat mi nga xam ne joxuloo ay ay ay ay ay données nga bind ko mu ne ko génnee ma parce que joxuma la ko am na si droit am na droit tamit rectifier am na droit daal am accès li ñuy wax accès mooy am na droit ñëw xool pas xool ñi nga xam ne ne bokku si moom yoonam nekku si mais li nga xam ne moo ko intéressé ak li nga xam ne moo ko joxee moom am na droit xool ndax lépp li mu joxee te def nañ ko lim ñu ko war a defee waaye itam si kaw loolu ñii nga xam ne ñoom ñooy traité données sénégalais yi si parrainage bi ñooñu ñooy kan ñooy candidats yi waaye ñooy collecteurs yi itam ñi nga xam ne ñoo doon dem si dëkk yi di dem di jëli ñooñu dañuy war a xam ne dañu am ñoom tam ay devoir yi nga xam ne loi moo leen ko teg devoir yooyu nga xam ne ne ay wayeef wale wareef yu yu am solo la moom la loi bi teg ci ñoom dañ ko war a respecté mooy suñu jëlee euh, données personnelles yi wala ñu ko sànni si seen biir kër ku nekk mën si liir ku nekk mën ka xam ku nekk mën ko utiliser wala ñu ko teg fi nga xam ne ne ah mën na am daal danger dañ ko war a sécuriser dañ ko war a mu nekk lu su ñuy jóg di ñibbi pare nañ seen liggéey war nañ ko tëj si armois bi nga xam ne am na caabi ñu téye caabi war nañu itam lii su jeexee parce que parrainage bi temps la. temps bi su jeexee ba processus bi yëpp ñu tëj ko ñoom war nañu détruire données yi ndax données yi li loi bi wax mooy da nga koy yëkkati di ko ut ndax dafa am finalité finalité bi mooy lan mooy lii nga xam ne moo la tax a jóg pour uti ay candidat ay ay parrainage lii la tax a jóg mooy am ay parrain soo xasee suñu xasee ba tëj parrainage bi ñu xam ne léegi processus boobu jeex na ñu ngi jàll si leneen doo yooyu da ko war a détruire soo ko détruire da nga ko war a tëj fi nga xam ne da nga koy archiver wala boog nga fexe ba rendre ko anonyme loolu yëpp loi bi daf ko tëral te loolu yëpp ñun dañ def benn guide bi nga xam ne dañ ko jox candidat yëpp ku ñëwul CDP yónnee nañ la ko képp ko soxla aussi yónnee nañ la ko def nañ ko tam si sañu site pour képp ki nga xam ne da nga bëgg a dugg si site bi mun nga ko si lire loolu moom moom lañu mooy li nga xam ne moom lañ def muy sañu participation parce que moo ñu war ci parrainage mais mais processus parrainage bi jeexee est-ce que yéen dina am benn